xamal nañu gannaaw suba dañuy tëj wal fajari te noonu la amee moo ne moo tax moo tax ma ne la ñuy wax yëpp ay prétexte la ay prétexte la keroog jooju bu kenn ñëwul woon ci plateau bi ñiy teg musique daañu tëj wal fajari donc vraiment euh, ñi ñi ñi luñ fi nekk nag di déplorer déplorer moom mooy c'est c'est c'est c'est l'arme c'est l'arme te kër gi amul amul défaitiste waaw kër gi ni ko Oustaz Assane waxee Sidi Lamine dafa xeex xeex xeex ba taxawal këram gii bàyyi ko njabootam bàyyi ñu ko sari Sidi Lamine du ñu gën waa digital waa digital je veux que image bii xew fii sama plateau bi wane leen ko ñu gis ko mami kaay mami ascenseur bi lañu ko sànni sari image bi xew man fi may waxee ci biir plateau bi il faut que ñu wane ko voilà et légalement les yi nga xam ne qui sont la disposition du groupe à la disposition du personnel à la disposition des Sénégalais daañ ko ba nga xam ne sunu outil de travail daañu. Euh, Jamil Jamil tu as vu tu as vu lii moo fi xew parce que man fi may nekk mënu ma ba tax ñu indil ma lii donc c' très grave c' très grave. maison de presse man loolu laa mënta comprendre aussi. xam nga ñun dañu toll ci jamono ji nga xam ne jamono argument la ñoom indi nañu benn argument ne moom la ñu moom la pour tëj Walf seen argument boobu nee nañ un argument fallacieux. la preuve bañ ko defee une première fois ba ñu eggee cour suprême cour suprême daf ñu jox dëgg bii noonu lay demee mais la nga wax nii c'est-à-dire que la ñu nekk di def na mooy que ils sont en train en train d'instaurer une de la peur mooy maanaam faw nit ñi tiit faw nit ñi ragal leen fii nag nañu xam benn affaire Walfadjri ku ragal xëyu fi. absolument ku ragal gontu fi ku ragal fanaanu fi. Mhm. dégg nga bu ñu mënee seen grenade yooyu. nga xam ne woyu yaa ngi fees ci mbedd ndakaaru yi di agressé nit ñi matin midi soir mënuñu mënaluñu dara woyu yi VDN baa ngi nii fees dell ay agresseur mm-hmm. chaque jour nga dégg suñu famille ñu leen di agressé buntu Pikine baa ngi nii bés bu nekk nga dégg ñuy agressé mm-hmm. suñu sœurs yi suñu te ñu ci dara jéemuñu ci dara waaye nag d'inoffensif journaliste mm-hmm. d'inoffensif reporter d'inoffensif caméraman mun nañu fexe ñoo ñoo fekk si leen seen biir liggéeyukaay di leen sànni ñun nag suñu arme mooy lii mooy micro bi eh, fii ñun suñu arme mooy lii lii mooy suñu grenade lii mooy suñu grenade et lii ça porte plus loin qu'une grenade seen dana danañu tere ñu liggéey pendant une heure deux de temps xëy na après suba mu indil ñu ay feebar waaye ñun nag suñu grenade mooy lii te grenade gi ilaa yow mi di nu du fay mhm. waaw moo tax bés bu nu mënee fexe ba fay jant bi fexe ba jour benn jour ñoom ñu fexe ba jant bi du jóg. waaw jour boobu ñu xam ne tëj nañu waa alors merci eh, Cheikh Niass PDG eh, gis nga yëf yi ni mu demaatee mu toll ni nag agression la ñuy def parce que ñun dellu nañ ci suñu bërëbu liggéeykaay ñu ngi ci rajo bi di wax mais grenade lacrymogène ñu ngi koy sànni biir Walfadjri ba fi mu toll nii ñu ci bëri ñu ngi sonn gis nañ léegi en direct ci YouTube bi fii ma nekk nii saxaar bi mi ngi ñëw ba dañ ma taalal euh, euh, lii nii indil ma ko pour ma ko noyyi mu mun a li wax sànq mooy tey actuellement Macky Sall a une volonté de commettre un génocide tey ñoo ngi assister à un génocide maanaam rey ay sénégalais man li ma naan léegi lacrymogène c'est ça peut tuer mhm. tey du ma bett su ma nee nit euh, nit dee na fi du ma bett mhm. te may wax début bi dem naa jaamaarloo ak policiers yi mhm. euh, lancé wuñu dara ñu ñëw commencé wax ay wax yu métti dara dara xewul ma ne xam nga lan moo basculé yëf yi. Mhm. xam nga lan mooy euh, le point culminant. Mhm. mooy bi nu amee imam bu ñëw tari wal fajri sootul wal fajri. Mhm. bi mu taree wal fajri wal fajri boobu noonu moo leen métti. tey soo jàngee siira yonent bi sallallahu san xam naa mun na koo faam fàcce. ñu bëri ñuy dugg si lislaam wala noonu lislaam yi. benn aaya ak Quran rek mooy mooy basculer affaire yi. donc il a fallu kenn ñëw tari wal fajri wala yaalil rash hmm. rek buur bi yëngatu hmm. ne leen ne leen ne leen rey tout de suite hmm. donc yàlla tey moo wane dooleem yàlla tey tey lu nu waxoon tey doonul woon lancer lacrymogène parce que wax nañ fi Macky dictateur wax nañ fi Macky jaam la wax nañ fi lu nekk il n'y a rien eu mais bi ne wal fajri wala yaalil rash wa shafri wal watr directement Macky Sall dafa woote ne chargé leen bu leen bàyyi lii c'est pas possible mu mel ni nag li sama papa doon wax fii na sàll mhm. moom moo ñëwaat mhm. fii na sàll bii dégg wal fajri wala yaali lanche mhm. dafa ne lii mënuma ko déglu lii mënta nekk moom moom moo moom moo wane na tey dooleem moo tax may woo kilifa diine yi kilifa aada yi démb gis dégg neen église tey wane leen yéen tamit seen solidarité ndaxte tey c' pas la presse qu'on a attaqué c' est l' a attaqué c' le peuple qu'on a attaqué kon nag ma ne leen yëf yi daal lii la. Hmm. volonté bi ñoo ngi continuer ñun on a voilà ñoo ngi nii di suñu arme comme ni ko Pape Sané waxee mooy suñu micro ñoo ngi wax mais ñoom ñoo ngi tiire micro nag ñoom ñu jël seen seen fetal di tiire wax dëgg yàlla loolu c'est pas normal c'est pas juste. ah c'est vrai donc le génocide est établi. Hmm. Cour pénale internationale leen ubbi tout de suite enquête. Hmm.